إله إلا لا لا إله إلا لا واو إلا لا لا إله إلا لا la ilaha لا إله إلا الله بايفا لا إله إلا الله بايفا إلا الله لا إله إلا لا إله باي باي لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا La ilaha bu faal baabul muridiina laa ilaaha illallaah ilaaha illallaah faal ak yaawoon Bamba

commencé ko ci bisimilah rahmaan rahim di sant yàlla bu baax ban ko jeexalee ci alhamdulilah rabi alamina war ñu euh, ñaar fan ak juróom-ñeent ñuy waajal comme ni ko sëriñ bu mag bi waxoon rek fanweer jàkk ba fanweer tey nag ñi ngi ci incha allah ñi ngi ci dernier jour bi nga moom nañu ñu yaakaar ne tey mooy dernier jour pour ñu préparer euh, pour ñu pare korité suba incha allah ci dernier jour yi nag euh, nit ñi daan ko faral di waxee kumte kumte kumte mooy nga xamante ni si ni mooy dernier jour bi taalibe yi sëriñ si dongo yi yaay faali baay faali ñëpp dañ koy préparé ça dina am yeneen këru yeneen këru kilifa yoo xam ne dinañ andi dinañ andi ay ay ay ay ndogu yu baree bari bari bari parce que wàññi nañ fi lu mat ñett téeméer jëm ñeenti téeméeri xar yoo xamante ni si dugg na tey ci kër gi lu bokkut ak xar yi nga xam ne moom la sëriñ bi defar ci wàllu tufe ak ci wàllu ay miche wi ay ay nag defar nañ petax defar nañ naat waaw ñam lépp daal loo xamante ni si dagan na pour julit di ko lekk tey defar nañ ko ci bis bi nga xam ne moom la ñuy woowee kumte muy dernier kumte muy dernier jour du mois de Ramadan. dafa am ay sëñ ku mel ne sëñ Mbacke Fall gis nañ ko sànq mu andi ay ndogu yu am solo macha allah ku mel ne euh, euh, euh, ndigal moodu ndigal kala. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen an gis nañ leen ñu andi mbooloo moo xam ni diggante 4 heures. ba 5 heures ba 6 heures boobu ba 6 heures mooy gis nañ fi mbooloo moo xam ne foo sànni mbatt mu tàkk donc loolu mooy euh, solo si nga xam ne ndogu yi am na ko ci nga xam ne loolu mooy loolu la ba loolu la Baye Fall di dundee ci weeru koor nga xam ne du ñu julli du ñu woor waaye ñàkk bee julli bi ak ñàkk bee woor bi day tere du du tere nga am loo xam ne moom ngay génnee muy ay ndogu ñu génnee ko macha allah. fii tey ci kër sëñ Cheikh Ndigal Fall. contentement lay doon parce que xam nga euh, liñ naan bés bés bu dellu si moo neex aussi tamit bés bi mujj dafay neex loolu moo waral mu ànd ak rigueur boobu. loolu moo waraloon rigueur boobu ñëw nga xam ne kër gi ni ma ni ma la waxoon sànq am na benn deux heures de temps boo xam ne da ngay mujj jaaxle sax dafa am benn foule am benn embouteillage boo xam ne moo amoon ci dugg bi ak génn bi doot fakkaala macha allah. sëñ Cheikh Ndigal Fall yàlla na doon xalifa général ci barke Cheikh Fall maamam. barke l'islam barke Seydina Mouhamed yàlla na ko yàlla defal sëriñ bi ku baax la ku laa biir la ku amuk taalibee la ku bëgg taalibee la ku fonk nitam la ku fonk taalibeem loolu moo tax fu ne la waay du jóge ci Sénégal 14 régions yi ci Sénégal fu nekk la fu waay du jóge ñu jóge Tamba ñu jóge Thiès ñu jóge Dakar am na ñuy jóge fu nekk fu nekk fu nekk ba ci frontière bi am na ñuy ñoo xam ne Mauritanie lañ jóge ñii Mali ñii Gambie pour ñëw fekkee si loolu ndax sëriñ bi moo leen ko jaral te macha allah yéen bi diis na. yal na ko yàlla woyofal ci barke a Rafaal. tey ni ngeen ko xamee rek euh, ci umte gi mu nekk bis boo xam ne bis bu spécial la ñu toog ak sëriñ bi nii bëgg mu sànni ci ay kàddu rek sëriñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, waa 24actu ñu bëggoon nga sànni ñu ci tey umte gi fii ci kër sëñ Cheikh Ndigal Fall. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. waa 24 nga xam ne dajale lu baax ak siiwal kër rek mooy seenu yëngutu ñu ngi sant yàlla baax ci toogal jëwriñ ji ñu toogal di sëñ Mbàkke Fall mu sëñ Munda di jëwriñ ci kër gi nga xam ne mooy sëñ Cheikh Ndigal Fall nag ci bis bi nga xam ne nag daanaka mën a wax mooy ndogu yu mujj yi kumte yu mujj yi sant yàlla bi nu yàlla boole ci jotaay bi nu waat ko jëf yi baax na fu lu baax fu mu baaxee baax na waaye nag ndigal lu bàyyi ko ci sëñ Tuubaa ji kër Cheikh Fall moom amul lambatu te jëf ji ñëpp maase na ci wax na sëñ Tuubaa moo ko digal Serigne Fall Baay Mourideen mag boobee mu di ko jëfe ba bàyyi ko fi ay njabootam di ko def ba tey ji sëñ Cheikh Ndigal Fall mi ngeen fekk ci kër gi ak jëwriñ yi ma àndal di suñ mbàkki fànn bi bii moo toogal bokk jëwriñ kër gi ñu àgg ci seen ndogu yu mujj yi di ko jébbale sant yàlla ci baax lu nekk nag ku ko ceebaroon def kee tam lu sant yàlla gërëm la ndax joxe ñam ci yàlla wax bari lool. waaye boo demee ci alxuraan mi nga xam ne tegtalu dana wax ni wa yut'imuuna ta'aama ala ubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran innamaa nutimukum lillaahi laa nuriidu minkum jazaan wa laa shukuuran jox loo xam ne nit boo la nga gën a bëgg nga xam ni ndogu yi boo seet ko bàyyi fa liggéey sell ga ca war gu nekk lañ ci man ñu koy def te kenn koy mos lu ci am lii te alxuraan sababu lu sol bi tam loo xoon sama borom di ko wax mooy naa li wàccoon ñett fan yoo xam ne saa bu defee ndogu ba boo boor koo dogu ab jaam yàlla ñëw di sàkku ndimbal mu yëkkati ndogu jox ko joxe loo xam ne ñun kenn koy jox nag gën loo bëgg mbaa yaa gën a bëgg si yàlla fay itam noonu noonu noonu suñu borom di fay noonu la nga gën a bëgg waxaan daa wax ne lan temps bi attatul fama taxi boona waara nag mooy ndolliku gi de si amat bu bees ndax wax naa la bërki démb ndogu yi mujj ji ñett rek lu ma téeméeri bool ak fukk ak ñett ñëw na seer faa ko son ci fukki bool ak ñaar ak benn super bi fi ko ba léegi nag suñu saafaal ak suñu mortaal ak sëñ Ablaye Fall Ndar sëñ di doon Cheikh Fall yi nga xam ñoo ñoo toog xale si Cheikh ku ci nekk doublé ko ñaareel ba ñett ba tey jii boo xoolee sëñ Amdi Khady Fall mii li muy jëf ci ci ci mbokk yi xool sëñ seex Ndege Fall di ko jëf rakkam yii di sëñ jëwriñ sëñ Mbàkke mu da nga xam ni bu si ba koor gi teew léegi moom bi ci li ñu doole moom li ndigam lépp sëñ Cheikh Ndigal la koy jaarale nu waatul bootu bi xaye booy dugg ci néeg day jaar ci bunt bunt tam ci kër Cheikh Fall ci Cheikh ndigal mii moom nag am na lu mu sos ca këram ca Mbàkke ba di ko sos comme tey njëkk yi moom defar na ci fi ma mën a teg baaraam ñaar fukki gàtt ak ñett yoo xam da ko doon leen dogal yi mu indi fii ñaareel comme tey defar na ñaar fukki gàtt ak juróom-benn saaflu ko ak ya ci ànd ak furiya ak yëpp indi ko ba ñetteel bi defar na mat fanweeri gàtt dal na ko ndog yi da xam da ko yokk suñu Cheikh Ndigal Fall tey jii ñu tey mu mu dog yi mu gàtt ca këram defar ko ba mu baax li ci war andi yëpp soog ko jébale te ñoom loolu ay yokk rek lañ bokk loolu suñu seen loolu def xam ne yaa ngi koy def te baax te yàlla rek xam ni ma ko waxee nii sëñ Mbàkke mu na ñëw ci ne kenn ku nekk yaa ngi sos lu baax loolu na ko yokk ndoguli bu sëñ Cheikh Awa Baye Góor daan nekk ceeb ñëwee lépp tufe ak ñambu tubaab ak saaf lañ koy def waaye ñoom ñi kenn ku bu dee benn yokku nañ ko bu ñaar bu dee fukk yokku nañ ñaar fukk sëñ Mbàkke mu den ndog yi mujj def def seen maam yàlla yàlla may doole ak yéen a joo xam ne ji ba liggéey feex ok kon mu nekkoon li nga xam ne moom lañ jëloom fii ci kër Serigne Cheikh Ndigal faal ànd ci ak Serigne Mbacke Ngouna ñu ngi leen sant baax di leen gërëm incha allah rabbi ba beneen yoon jërë ngeen jëf.